tànk yi sëriñ bi fàttali na ko léegi tànk yu ñuy yàgg def la parce que moo war bépp jullit ci Sénégal moo war bépp citoyen Sénégal parce que màggal gi occasion la pour màggal màggalab liggéey màggalab taxawu màggalab suñu wéyjur suñu sëriñ si Ahmad Bamba moo tax ñëw fii ngëneel la pour ñu njëriñ la pour ñun moo tax chaque année ñu am plaisir def ko et taseek autorités yi nga xam ne ñoo fu nekk ku nekk ci ñoom nag ñu sàkku ñaan pour réew mi sàkku ñaan pour jàmm dem ci réew mi sàkku ñaan pour ko problème yi dund nit ki nit ñi di dund li nga xam ne mooy tolof tolof yi askan bi jaawan jànkonteel ñu réglé ko et li ci dal xel mooy que ni ñii dañu dégg képp ku fi ñëw xam nga li sëriñ bi sëñ xaa di dox pour que jàmm am pour que tolof tolof yi weesu vraiment suñ ko gisee daañ ko rendrale hommage pour set tout cet engagement et cet investissement sëriñ Bass nag moom dafa doon kenn ci ñun doon am taxawu boo xam ni ñun ñëpp ko rafet dama naan ko yow toujours porte étendard nga parce que porte parole mooy ki gën a fës ci lu nit ñi bokk te mu am ci taxawaay bu rafet. en tout cas nañ trop parce que li ñu ñaan tey suñuy kilifa ak suñuy sëriñ mu jëm ci réew mi mu jëm ci askan wi ci jàmm ak li ngeen xalaat te kenn tudd ko loolu lépp sëriñ bi wax nañ ko ko et incha allah ku nekk ci ñoom la nga war la nga man di nga ko ci dox parce que loolu moo leen war te door nañ ko moo tax ñu am espoir. Bamba borom est un précurseur dans son domaine pour qui toute la Oumma et tous les musulmans sont fiers. Et le Magal est l'occasion de lui rendre hommage pour tout ce qu'il a fait pour ce pays et pour ses citoyens. Donc nous sommes venus aujourd'hui rencontrer les plus hautes autorités de la Ouamouride. Nous avons jour Serigne Moussa Nawel, nous allons être reçus par le Khalif général et nous venons de voir monsieur Serigne Bass Abdou Khadre. Serigne Bass Abdou Khadre, c'est la pierre angulaire de l'organisation du Magal. Et nous n'avons de cesse de le féliciter, de de lui rendre hommage pour ce qu'il est, ce qu'il représente et ce qu'il fait. dans la mission qui lui a été confiée par euh, toute la Tariqa à travers ses plus hautes autorités. Donc notre présence ici, c'est participer à cet hommage qui est rendu à Cheikh Ahmad Bamba, c'est de dire, de communier avec les populations de Touba, pour communier avec elles pour que nous puissions ensemble prier pour un Sénégal de paix, pour un Sénégal pluvieux, pour un bel hivernage. pour que ce pays puisse transcender ses difficultés, ses dissensions, ses divergences euh, et aller s'occuper de l'essentiel. L'essentiel, c'est le développement de ce pays. Et je pense que c'est les prières que nous sollicitons, que nous avons sollicitées. Et nous pensons avoir été entendus par les hautes autorités. En tout cas, toutes celles que nous avons rencontrées sont prêtes déterminés et engagés à faire en sorte que la paix puisse prévaloir, la paix des cœurs, la paix des esprits pour un Sénégal prospère.